salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñuy topp ci internet bi rawatina ci chaîne bu muy Serigne Djily TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baal àq di leen baal àq di leen ñaanal jàmm ak tawfeex ak saadatu daar yi di ko sàkku ci yéen mbokk yi tey dañ leen dikkaat gi yéen ci gént ab teen tàmbali woon nañ ko bis ni tey nag ñu indi leen ci ay tegtal yoo xam ne yu mat jàpp la ku gënt ñu dugal la cib teen ñaare loolu ku ko gént ay jafe-jafe yuñ lay bëgg dugal la bu fekkoon ne luñ lay wax la nga bëgg caa dugg bàyyi ba nga teey ca dana tekki ay pexe yuñ lay fexeel yu sotti ku gént nekk ci teen bu lëndëm ba tey ak jaaxle gooy dugg la mën naa nekk sax duggu ku kaso bu fekkee nag danga gént nekk ci teen bu lëndëm nga fexe ma génn ci wala ñu génn la ca loolu ay jafe-jafe yooyu génn la bu fekkoon nag ku nekk ci kaso moo gént di génn ci teen loola it day màndargale léegi tey ñu bàyyi ko bu fekkee koo xam ne day xëccoo lu mel ni marché wala lu mel ni posto mu gént mbooloo mu nekk ci pujab teen mbooloo mu bari waaye moom dong lañ ca yëkkati jox ko baag bi baag bi mooy rootukaay bi bu fekkee marché booy xëccoo la danga ci jot bu fekkoon ne posto bu ñuy xëccoo la wala concours booy def la ak concours ba lu mën a doon dang ci jot dang ci adme ku gént di wëgg cib teen wëgg mooy li ngay dugal ngir xëcc ndox mi xëcc ba mu nga koy xëcc ko dugalaat loolu moo wëgg ba yàgg la ngay wëgge yàqu moo xam baag la moo xam leneen la loolu dana tekki gàllankoor mooy am ci sab liggéey wala ay jafe-jafe yooyu am ci sa alal ku génn sa biir kër teen buy ball ndox mu leer loolu dana tekki wërsëg dana tekki mbooloo mu fay daje bu dee ndox moo xam ne ndox mu nax la nag ndox mu nax mooy mu leerut loolu naqar ñaar lay doon wala ay rongoñ bu fekkee koo xam ne day ñaan lu mel ne aajo moo xam xan wala dugg wala riyaada gént teen bu bënn moo xam ndox la bënn moo xam pétrole ak yu mel noonu yooyu yëpp day tekki màndargam ijaaba bu fekkee nag tur wuñ lay joog jox laa nag tur yàlla wuñ lay soog a jox nga koy sikkar ci tàmbali ba nga gént teen bu def ndox ñay xamal ne tur tur wërsëg la teen bu gudd nag te bari ndox dina tekki fan gudd ak wërsëg bu fekkoon na ko xam ne day listixaar lu mën ne say gént teen bu def ndox loolu lañuy xamal ne borom wërsëg la dañ lay xamal ne it borom njaboot la bu dee nag da gént teen boo xam ne defu ndox mën naa gudd fan wala seen ànd mën naa yàgg waaye nag pour mu amul njaboot dana ko jafe wala boog wërsëg bi taxu koo bari lool yooyu ay takk-takk la yu mat a bàyyi xel la ku gént am koy sakk sab wala sax nga gént ko noonu la mu gent gis ab teen am ko koy sakk loolu ñaara dana tekki gàllankoor moo xam liggéey bu ñu lay def la ngir sey mbir taxaw moo xam it pexey saaxir la ngir yàqal la ku gént ku faatu nekk ci teen bu lëndëm ñaare kooku ku nekk ci ay jafe-jafe lay doon wala ci mbugal wala ku xisaab ala kulli xaalin wala ku ñuy topp dara yu mel noonu nag buñ la ko wanee baax na nga ñaanal ko defal ko fida wala nga gënal ko sarax wala loolu lépp boo ko mënoon nga xool koo xam ne mbokkam mu ko jege la te am yitte ci amoon yitte ci moom lool nga wax ko ko ndax barsax kat rawdatun min riyaadil janna la wala xufratun min naar kon mbokk yi loolu lañ la indi loon tey ci ay takk-takk lu jëm ci wàllu teen muy yi la indil nag bari na lu muy daje lool ñu la ko waxee kon nag nga jàpp ko te jàpp gi dana la dimbali ba nga mën a dégg leneen ci biiram sax yoo xam ne jun yi ma la jox dana la ci mën a dim la ci mën a dimbali kon ñu ngi lay fàttali ngay way di abonné ci chaîne bi ak di ko tasaare ndax bokk na ci li koy yëkkati ak koy dundal wasalaamaaleykum wa rahmatullah